final poids léger baa ngi noonu diggante Ongué Ndiaye waa de bu ko dimbaliwul du ma xam turam borom ngeen bulu bula lii ma ci dimbalewul du ma xam turam moom de daa bëgg a jaay Ongué Ndiaye eh Ongué war ko ndombe Ongué war na Boy ndombo Ongué Ndiaye daan na Boy Faye bu Guéréo ndeysaan Ongué Ndiaye daan na Boy Faye bu Guéréo jeex na